d'accord leen tamit laa la mën a wax ma nit ne Ardo danga koy fase par force fase woo Ardo par force ma it la ma la waxoon rek boobu fa laay taxaw léegi dangay xool lu la intéressé ak li la arrangé nga def ko duma téye sa loxo bi di la ñor di magum jëmm nga xoolal di la arrangé rek nga def ko ki ne bu ay waxu Ardo jotee ay fase ñàkk fase yooyu yëpp dañ ko teg feneen ma ko parce que loolu moo nekk à l'ordre du jour dañ ci wax ab ab gis nga sujet bi jaruñu ciy daw non dawuma ko parce que li ma lay wax tontu naa la ci nee naa la ci la ma waxoon ba tey maa nga ci wax jii heure bii du waxam bu bu ma ci tollee ak moom danaa wax ak moom ca loolu mais dama ni la yow ki ne sëy moo la tax a jóg wala lan c'est quoi ton situation yi ma nekk ak fi ma jóge ba dellusiwaat ci kër gi ak li ma daj ndax yow ak sa famille ba tey heure bi yaa ngi ci di indi ay problème bëgg victimiser wu. non victimiser wu eh. dama lay wax li nekk ci man. parce que ci loolu sama yoon nekkul ci eh, loolu. waxu Ardo lañ fa arrêté sama waxu famille. non dama ni Ardo féete na boor teg naa ko ne li ma la ci wax du deñ bu jotee dinaa ko wax li ma ko a wax li ngay wax du intéressé wu du ma ko dégg. ah intéressé wu na la intéressé na nag. xoolal na la intéressé nag. waaw na la intéressé nag lu leer laa la wax. Ah.